嗯 halaan bikum maa ngi waat ci alquraanul karimi na li ñu may tuumaal defuma ko trafic wu ma phobie man Seydina Fall Bougazelli fañ maa taqal moo tax tekki naa sama ndomba tànk député bi jébbal sama bopp yoon ngir ñu leeral yëf yi kàddoom yaa ngi ci critique yéene kaay l'évidence yéene kaay ne ku doon laajte faali ngoye ngi Bougazelli mañ waxoon na fa daw génn na tekki ndombal tànkam ba pare dem wuj ji yoon le quotidien yéene kaay dëggal ko ne démb daal la démissionné ci assemblée nationale gaaw ba pare dem wuy ji sandarma ya sandarma yi na ko waa baax na gis nañ la léegi demal ba suba ci àllarba ji bu ñeenti waxtu jotee 16 heures nga ñëw ñu jàkkaarloo vox populi na waaye démb bu gazeli show la doon def xumbal tàngal safal a yow seetal moo demal boppam sandarmeri na leen maa ngi nii te tekki naa sama ndomba tànk assemblée nationale député bi kon def leen seen liggéey turbine yéen a kaay na ko hee defal ndànk de gis nga yow mii yaa ngi ci guddi gu bët setagut li nga def nii ndama nga ci gàcce ngi ci de bu lay leer rek muy sa jàmm libération na man sa gàcce ga gën a gis moo gën a bëri ndam li li koy xaar nar naa métti ci moom de enquête yéen a kaay man li ma métti mooy tekki ndomba tànkam def démbu fa doy ay jiixi jaaxa dara ci leeru toon ah. yaaw seetal ay 18 heures moom ci boppam moo waxal boppam bu gazeli ne maa bañ tekkiwu ma tànk ku ko wax loolu amut ah yàggu dara Moustapha Niass génn président assemblée nationale na jot na bataaxalu démission am bi 15 heures jotee a kaay bi ne yéen ñu am xel nekk leen nandite fa mel ni waa ji fañ koo forcé ngir mu tekki ndooma waaye neexut ko la ngaa mun a ba sonn de mu jige la wadd si du quotidien ne Lamine Seck moo ko nar a remplacer a sërëx a waaye lañ ko tuumal amut sàndar mi na ko 16 heures dana leer maître El Hadj Diouf nangoon nekk avocat layel Bougazelli ma ngay wax nag ci yéene kaay bi nee kii defu dara te ñun danañ ko défendre ba génne ko ci li ko tuumal avocat bi ñuy wax maître Assane Dioma Ndiaye ak maître Ousmane Seye Bougazelli fa leen a jëloon ngir ñu défendre ko layal ko ñoom dañoo bañ na ko ñun duñ la layol ndax am na loo xam ne a ñu taxaw ci kanam sénégalais yi naan leen juróom-ñeenti avocat muy fanweer ñoo koy layal ba sàmba di ca dem ba fu mu yem nag neex ndax ñun suñu ngañ ci yëf yi Boughazelli nag ci l'observateur nee sama passeport diplomatique bi danaa ko delloo ak bu sama jabar ak samay doom ñoom nag seen ëllëg maa koy bàyyi xel bu baax xibaar ya mujj joxe nag ma ko joxe ca l'observateur moom Boughazelli nee na Aliou Sall guddik altine jàpp talaata sama canapé ba fa fanaan la def mu bàyyi ko ci Aïda Ndiongue tamit ñu lay dégg ci ay la kàddoom yaa ngi ci a na problème de keneen ko am problème mooy Serigne Mbuub njiital CCBM laas yéen a kaay moo ñu xamal na Serigne Mbuub daal njiital chambre de commerce bu Kaolack moom fañ koo porte plainte takk der yi waa dig procureur sant ngir ñu lijjanti mbiru Serigne Mbuub bañ a koy wër aa seet tal lañ koy toppee nag mooy wàll escroquerie tappale rakkam bu jigéen bu ñu wax Aminata Mbuub moo porté plainte Serigne Mbuub ak Moussa Mbuub ne fa jaay ab immeuble boo xam ne société Baara Mbuub alimentaire moo ko moom te yëfee jaarut yoon moo tax mu yóbbu leen ca yoon keneen ku ñu yóbbu ci yoon Omer Seck moom it wàllu escroquerie lañ ko toppee mooy PCA bu Lonaas xaalis ba nag toll na ci lu jege benn milliard suñu xaalis nay lee leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na juróom-ñaar fukki million ak lu topp moom la réewum Allemagne jox Sénégal ci sommet ndaje bu mag ba ñuy amal ak réewu Afrique ya foofa ca Berlin la Soleil yéen kaay ñi ko xamal li mu ñu xamal moom les éco yéen a kaay mooy na projet de loi ngir toxal wote maire yi yi bokk ci ku jegi fañ caa féewaloo tasaaroo njëriñ njiri Aly Ngouille Ndiaye moom la mu am na ko si du quotidien feelu ko na wote ngir ñu a wax SDE tàggat yaram Koulibaly Gana Crépin Sadio Mané mënatuñoo ñàkk ci équipe nationale ñoo ëpp luñ football ci 2019 bi ci équipe nationale stade yéen a ko xamal la mu ñu xamal moom am di fay nekkoon gaynde mooy ne Aliou Cissé xamu dara dara dara tous la xamu dafay def loo xam ne léeg-léeg fay jaaxal nit ñi moo fi waxoon moom Aliou Cissé ne ko du la jël am di fay nee na Ismaïla Sarr Moussa ku nekk xam na ne footballuñu seen club oo leen te oo te atam biñ ko dafa dëgër bopp rek lu matt na dana dagg te xamu dara kàddu am di fay mi ngi ci source ay yéen a kaay a di l'observateur moom xëy di làcc na lan moo tax amateurs bëgg combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 2 nag mooy firi ñaar ñu ñu tëj kaso nag doon leen yóbbu ca commissariat bu port dugal leen ci oto ba bañ dee ba tolloog marché Sandaga fa ñu rëcc kos almet daw dugg ci biir dëkk bi libération moo ñu ko xamal ne xanaa lii mooy prison break Michael a métti moo ñu ko wax njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal nee na képp ku ñu gis nga taxaw ci mbedd mi di saw danañ la alamaan ñaari junne jàpp juróom-benn junne ay jigéen bu raxasati say bool jël ndox ma tuur ko ci mbedd mi danañ la alamaan ñaari junne ba juróom-benn junne naka noona raxaskati oto yi ci mbedd mi képp ku tooyalati mbedd mi fañ lay alamaan mën nañoo dem sax ba tëj la kaso waa ma ne ngir yàlla dogal bi nañ ko jëfee ana magam jëmm taxaw ci mbedd di colal naan yaa ngay saw wala nga jonkan rafetul sax ci gis-gis waxuma la ak salte gam salte raxas tuur ndox ci mbedd am na jigéen ñoo xam ne jàqal naa leen